sëñ bi Mbakke xanaa di jéggalu rek ndax lii diis na lool ci ñun yëkkati la rekk diis na lool ci ñun waaye nag pexe amut moo tax lu mu gën a gàtt rekk mu gën ñi ma àndal ñi ñépp ku ci nekk am yéene bëgg a wax sëñ Maxtaar mii nga xam ni day sa lépp nekk fee man nga xam ne daa mu sëñ Mamour mu sëñ ma Masamba sëñ Cheikh Guèye nga nele ak sëñ Jili Ba ñoom ñëpp euh, ak njaboot gi yëpp rek. ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ku ci ne daa am yéene. damaa xam ni nii ñun ma ko defele sax moo gën ne bu gënoon a yaatu <laughs> ñëpp bëgg a ñëw ndax jàkkaarloog sa jëmm jii rek te bëgguñu dara lu dul nga bëgg rek euh, euh, di di jéem a dàkk dàkk sëg bëgg ndax xam nañ ni sëg bëgg mooy bëgguk Sëriñ Tuubaa yow amoo amoo amoo ñaari bëgg genn bëgg rek nga am muy sëriñ bi sëriñ bi nga bëgg nag am nga ko te di nga gën a dajeek moom waaw bu fekkee ni taalibe am na dara ci sëriñam te ñun sëriñ Tuubaa rek lañu am sëriñ Tuubaa moomu ñu am nag ñoo ngi koy ñaan mu dimbali ñu ci sa jëmm ji ak ci sa toogaay bi ndax yaakaar yi jullit yëpp ci yow la ne dootul dootul yoonu murit sëriñ bi ëpp na foofu ëpp nga foofu li ñuy wax amirul mominin ku la ko tuddewul it moom nga ndax amirul mominin day àtte diine àtte àddina ku jaaxle ci àddina fii lay ñëw ci sa kippaar gi te nag suñu yaakaar ju tedd ja moo ko mas a wax nee na lépp fii lay firiñ ci ko nga man ñëppit nag ci diine ji te mu yàgg te du tey sa toogaay bii kon toogaay booba rek lay firi ñun nag e, bu ñu waxee day ëpp wala mu mu am nu mu def ci ñun waaye day lii ma waxoon it dama koy tuub bëgg nga tuubal ma ko ndax yaa ni woon sama kilifa dama koy baag boppam ba kook sans bopp te am na lu ma rëcc ba waxoon naa ko Cheikh Mouhamadul Bachir mii nga xam ne yaa ma boole woon ak moom liggéey te booba ba léegi luy doxal liggéey bi kanam rek waaye nag daa mel ni sañ sàmbarooma leen boole jikko mm-hmm. ndax gestuwul merul wérantewul xuloowul li mu bëgg mooy li nga bëgg rek ak nu mu ko mën a fexe mu dal ci kawam ba nga am ko dina ko fexe ba nga am ko ñu nit ci loola lañu ñu tàpp tàppe rek bëgg nga bëgg rek ndax sa mbëgg xam nañu mooy bëggum sëriñ bi te mbëggum sëriñ bi mooy mbëggum suñu borom li nga ne woon dafa jot ñu xam sëriñ bi xam na mënuñu koo xam nag mu ne su koo xam waaye mën nañoo xam lu bari ci sa jëmm ji ak saw doxalin ak ni nga mel ak ni nga nii nga dimbalee réew mi di yaakaar yi ñëpp nag du yaakaar yi murit rek nag ëpp na foofu ma ni woon neel sëriñ bi bum ñu yërëm ndax xam naa sa yërmande gi ni nga yërëme taalibe yi ni nga yërëme jullit yi waaye murit yi dañu ni dañoo bañ a tàyyeel te nga yërëm leen ba yërëmaande bi bëgg a ëpp ñu bëgg a def dara Mbàkke sant leen ndax sa njaboot gi yow rek la ñuy déglu balaa leneen a am ci ñoom yoon ndax njaboot boo liggéeyloowul bu leneen mën a am ci moom yoon yow rek la déglu te loolu yow rek ka ko man nee naa sëñ bi sax wax na xëy na daa téléwul ni jox leen wala def leen nangam waaye bu dara amee mu ni maa ci def lii moo lay won ni bëgg na loolu waaye sa kàddu rek la nit ñi bëgg a dégg loo bëgg loo bëgg ñu def ko mbàkke bul xaar kenn loo bëgg ñu def ko te dañ koy dañ koy def ni nga ko bëggee yow rek lañ mu rek la déglu loo bëgg rek ndaxte ak ruu moo ëpp jëmmi nit moo ëpp alalam te ruu gi nga moom kon bu ñu baax lii nga xam ne ñoo ko yor te yaa ñu ko jox muy dem fenn foo xam ne fii du la neex te boo wootee ñu ñu ñu jox la ko loolu rek la ñu bëgg yërmande gi Mbàkke na doon yërmande ak leneen waaye bu mu doon yërmande poos yi ak ñaq wi yër liggéey loo ñu laaj ñu ñu ñu ñu ñu indil la ko loolu yow rek la ñuy déglu loolu nag laay tuub ndaxte sëb sëriñ doo ko doo ko doo ko diggal doo ko nu mu ti maa ngi koy tuub waaw ah ah alhamdulilah Mbacke alhamdulilah noonu la baaxee. alhamdulilah soññi rek la. waaw na soññi rek la. bari moo moo mooy moo moo ci jiitu def ca xelam def ci itteem def ci fitamu rëy moo ma cay xiir ci bari ci lu demee noonu moo ma cay xiir man loolu man yàlla ma bind noonu jikko bu ma teg kenn waaye nag lu demee nii lépp ci mën a doon rek bu sottee rek moom moom moom moom mooy ki nga xam ne moo ko moo ko ci soññ bu baax ci loolu nga wax ne taalibe yi dañ leen di teg moom am na pësté bi am na fit bi waaw waaye nag dafay jaaroo nekk ak kilifa itam nag waaw waaye waaye loolu lépp rek alhamdulilah rabbil alamin yéene na ma ko njëriñ ah kon de alhamdulilah Mbacke waaw loolu Mbacke waaw euh, ñëpp xam nañ ko waaye fitam wii ak ni mu mel bu amut woon ku mel ni yow kilifa gu mel ni yow du fa yegg fitam wii ngay wax ak lii mu la yéene. bu amuloon kilifa gu mel ni yow du ci yegg mukk ci àddina xelam xalaatu ko yow la da ngaa baax rek di ko joxe lii ngay joxe yow mi ci yow mii la jógee rok ci moom rok ci man rok ci taalibe yëpp nag yow la rek de du kenn de Cheikh Ahmad Bachir mii du moom du ma sàmba duma dem ba yow la ndaxte ko am kilifa gu mat kilifa loo mën a jëfe lu dul na mu toll wàcc nga ko te moom ñimewu ko waaw ni mu ko ñàkkee ñime nag lañ ko ñàkkee ñime ñun ñi dama ni mbàkkee liggéey loo ñu say outil lañu say sordaar lañu kenn xajul ci sa liggéey bi lu dul yow noo ko bëggee ñu defe ko noonu noo ko bëggee rek waaw euh, noo ko noo ko noo ko bëggee rek noo ko bëggee noonu lañ koy defee ndax yow Mbakke yaakaar yëpp dafa daju ci yow te murit yi dem nañu ba ba takkuwaat jeneen takku goo xam ne gii man xam naa ni mosuñoo jóg jóg nañu jógin woo xam ni sa toogaay bii rek ak sa fit wii rek ak sa ngorgu ak ak nii nga bëgg leen nu mu tuddati am lii maa ko maa le maa ko nu mu tuddatee loolu sëñ bi dimbali ñu rek mbakke waxal li nga bëgg rek noo ko bëggee ñu defe ko noonu waaw ndax yow day kenn du xalaat mukk jël dara di xalaat lenn lu dul na yegg fi yow rek moom la eh, eh, jafe-jafe bi ñuy am mooy mu mën a yegg si ci yow te nga ñaanal ñu nag sëriñ bi dimbali ñu ba ñu gën ko mën a liggéeyal waaw loolu di ñaanal ñu lool rek ñun amatuñu genn ñaan ndax lu mat ñaan sëñ bi ñaan na ko. fii di ñu rek. loolu rek la bëgg. ñun ñëpp lenn lañu bëgg nekk si ci yow rek nañ dégg sa baat ak sa kàddu rekk nañ déglu rek ndaxte Mbàkke fii nga egg ak ñun sori na lool te yaakaaruñ ko woon ndax jamono li fi dox bari na lool at yi ñu génn li fi dox bari na lool waaye bu dul woon yow lu bari lu ay nag Sëriñ Tuubaa du ju mukk Mbàkke kon ñuy ñaan nga yàgg fi te wér te ñu di nga dimbali ñu nag ndax liggéey bi li fi des li ëpp solo mooy sab toogaay li ci ëpp solo mooy nga nefe rek ne suñu kanam rek ndax yow Mbàkke koo ne kanamam du rëcc du rëccale du ragal du yaafus du tàyyel te loolu la sëñ bi bëgg te yow am benn bëgg-bëgg nga am mooy li sëñ bi bëgg rek Mbàkke xoolal ni nga dekkalee xasida yi sëñ Tuubaa yi mel ni démb lañ koy doogu bind xoolal ni nga ci xiire taalibe yi rek ak nii nga xamee ni ku ci nekk ngi takku ba bi may dugg ci oto bi di ñëw nit ñaa ngi may dab ni ma mbaa demagoo mbaa nangam nangam man leen déedéet lii kat day am lu fi nekk loo xam ne lii waaye sëñ bi kat liñ ko bëgg liggéeyal du dindi am ndox fii du tàng dox di sànni sëñ bi daa am ab liggéey boo xam ne bii moo koy liggéeyal boppam kuy ñëw fekk ko ci ñu takku nekk fi kanamam mu ne ci suñu kanam def ñu nag ay jumtukaayam ndax ñun sëriñ Touba bi ñu yàllay sàkk sëriñ Touba tax mu sàkk ju te yaay sëriñ Touba. kon Mbàkke dimbali ñu liggéey loo ñu loo bëgg ñu def ko ndax yow wóolu nañ la xam nañ li luñ la jox sëñ Touba lañ ko jox. lii nga wax ci sëñ Amadou Bachir mii wax ko ci njabootu sëñ Touba gii ci yow mii la ne ndaxte dañu ni bu bu tegalee bool jekkee bool ba jiitu la. kon ñoo ngi yemale foofu kàddu gi ndax guddi na am nañu ñëwante bu rek waaw jërëjëf hmm? ñaari téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom-benn. ñaari téeméeri million. ak ñaar fukk ak juróom-benn. 226 millions. ah. dégg mu la dégg moo a tontu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalu sëriñ bi dañuy yëkkatee kaddu yi xam naa kàddu gi sax xaw naa suufe ndax dañoo bàyyi ko ci ndigal lu mu yéenoon ci yëngatu maam Cheikh Ibrahima Fall fa lañ bàyyi ko ñëw fii ku ñuy ñaanal sëriñ bu baax mu yà mu gën fee yàgg loolu te ànd ak wér. ndax li sëñ mbàkk yu seere rek mooy mooy yëg-yëgu xolu taalibe yëpp te gëm na gëm na itam bëggu sëriñ ndax keroog ba xew-xew bi xewee sëriñ bi fekk naa ko ci xaal bu kawe ci yërmaane ju am ci nit ñi ba attana jël alalam jëpp sax jël ko def ko ci liggéey bi loola nag day mel ne lii nga waxaat fii léegi mooy yëgeeku taalibe yi ndax ñi fi jaar ñëpp loolu lañu wax ndax jëkkut bi màggal Tuubaa gi bëgg a jëmo bi ndox mi taa wangoo bi suuf dangaa mel ni ko xaalu dama nañu sëñ bi dimbali joxe ndigal ñun taalibe yi ñuy liggéey dëkk bi defar assainissement bi kàddoom képp la ñuy diglu loolu jiit na màggal Tuubaa kon bu yàlla defee xew-xew ba mu amee keroog ba mu agsee baat bi ma sëñ bi njëkk a wax mooy lii kat doontul lu ma lu mën a xaar dama ko bëgg a tàmbali kuy ñëw fekk ma ci kon loolu fekk nga ci sëñ bi kon nag mu ngi lay sant bu baax ndax xam na xam na sa xol ndax sa digg moom yàgg na xam na ci yow lépp xam na ne sa lépp suñ Tuubaa rek looy def rek lam lam la seere loon rek ne mën ngaa bu boo ko mënoon mboolem luy àll ci àdduna nga dajale ko liggéeyal ko suñ Tuubaa loolu doy na sëkk seere ba ñu ubbi ma saali gi lam moo yóbbante woon ne la naa la wax ne mi ñëw indaale leen ngërëmu Sëñ Tuubaa loolu amul dara lu ñu ci mën a dolliwaat. loolu ñaanal la li li nga ko bëgg a liggéeyal te parce que yéene ànd moom ndax naalikat bari na tëri na sumb yi na bari na lool yi ci kanamam kon na nii nga waxee ku ko dégg dal na mu xel te xam ne foofu taal bi Sëñ Tuubaa yëpp nekk kon jërul guddal ndax sëñ bi daay yendu ci daayira yi tey man xam naa sax yërëm laa waxtu bi xaw naa te it dañ ko war a sakkanal bu baax moo tax jotaay lu mu gën a gàtt rek moo ci gën te Sëriñ Tuubaa moom wax wax ju wax ju bari amut solo li ci am solo mooy jëf ji rek jëf ji rek ci am solo te gis na ko li mu la waxal bopp bopp mu dégg nga ko nee na la xam na xam na ne xam nga ko ndax xam nga ne mënta teg suñ noonu la ko yàlla bindee wax naa ko barki démb rek suñ mënta teg kenn dara noonu la ko yàlla bindee waaye nag xam na li ko war itam ci kon na seen xel dal bu baax <laughs> boo koo gis rek na nga xam ne sa aajo faju na te ngeen baat bi mu wax léegi nee na suñ bii nii du ñu dégg kon amut lu ñu mu ñaan.